Absolument. Absolument. Voilà, quand on jouait pour l'équipe, on lui a dit Il avait 12 ans en 2002. Alors, ça, il euh, y a un Polero qui a appelé sur le terrain. Et le tarif habituel en Sénégal s'appelle Bonadi. Ouais, ouais. maaleykum salaam. ça va. oh bi ma fiyax si équipe bi kontaan si sénégalais parce que depuis 13 heures am na ñu fi taxaw añu ñu defuñ dara ndax équipe bi moo ñu ko jaral tu vois tey gis ngeen xale yi am na ñoo xam ne sax dañoo daw jàng pour seetaan équipe bi mu nekk loo xam ne dafa nice am ñoo xam ne si banlieue bi lañ ñëw ñëw ba monument tasanteeg fi waa presse est miroir tu vois c'est quelque chose. waaw Bouba kontaan nañ sa teewaay fii nekk nga koo xamante ni yow nekkul kenn du présenté kon dégg nañ nga wax ci match comme boobu tey Sénégal dañ naan moom mooy nekkoon meilleure défense léegi nag ñu ngi bëgg a boole ci meilleure attaque looy wax ci loolu. waaw dañ ciy am fierté bu mag parce que tey soo gisee gars yi dañoo fipp quoi te fipp bu ñu mooy yoon parce que tey population bi moo soxla woon jeu population bi moo soxla woon dugal population bi moo soxla woon gagné parce que tey depuis boobu ba master pool dañ naan non gars yi nekkuñu mais il fallait ñu en huitième de finale pour wane ko mais il nous reste trois matchs de finale demi-finale finale incha allah. gis nga tey beneen xar kanam lay. waaw indi beneen xar te lii da ciy baax prochain match équipe bu ñuy dañuy bàyyi xel te loolu mooy gagné mooy gagné d'Afrique parce que loolu moo ñu yóbboon finale en 2019. waaw waaw seen Miroir TV tey ñaari film seen laa leen indil. waaw bu taalal ak vert. victoire bi dañ fi tase en quart de finale di leen wax chaîne miroir laakin bro teekin TV cash lay di go non non au fait instant bii nii nañ wax si coupe d'Afrique après on